yonent bi nanguwul ko jënd suuf parce que suuf àlalu ñëpp la boo ko dundalee rek dundalal ba ba nga tële dundal gi keneen ñëw dundal te moom nag gis na ni loolu jamono des na tuuti dootu ko nangu te moom mën na jël responsabilité digal nit mu jënd suuf moom ko parce que xam-xamu màgg na ci te lu yomb la bañ ko laajee mu ni mais Sidna Omar bi yonent bi ñëwee di def fatxu Makka lu mu njëkk a wax ana sama kër ga parce que daf ko luye woon kër nag bu fekkee dañ koy luye mën dañ koo jaay ñoom nag jaaykatu jaam yi dëgg ci boobu pour fexeel ko parce que nee ñu kii ku ko topp àdduna bu tukki lay doon mais boo ko seetloo bu seetlu ko yépp ci wàllu yar la ndax gis naa Maodo reprendre ko Sidi El Hadj Malick radiallahu taala xam nga àlla jaamadu dem bu sokkoon bi muy ndaw fa sawaroon ci xam-xam mu ñëw seet si Sidi El Hadj Malick nee na fan yooyu sax mu ngi yëg ci moom diisaayu yaram ba gannaaw gi la dégg nit dafa tëdd mu ni ko góor gi man daal dama la bëggoon am ay laaj yu ma la laaj bi muy jëkk a wax mooy loi bi tubaab yi wote

lu ko ëpp importance amul te ki xas ni ashhadu an laa ilaha illa wane na ni benn sang rekk am ñëpp jàmm la waaw naka ngay wàññi koo tey ñu naan la jaam nga nga di ko nangu ne la téeméeri junniy nit wër di la dóor ak di la takk lànkal doo jaam waaw jaamu kenn rek nga mooy sunu borom gis nga loolu kenn mësu cee mën a génne Sidi El Hadj Malick daf daan wax ni nit ñi dañuy fekk ku ñu tooñ ñu ni jàmm te jàmm amul mais benn kawaru doomu adama ki ni moom moom jàmm bi mënu ko defar mënu ko defar kon nag mbir la moo xam ni bu ñu ci wootee nañ ko appliquer ñeneen mais du ko appliquer ci jullit parce que jullit gi masul nekk jàmm abadan abadan mësul nekk jàmm man xam naa ni bu ñëwoon gore fële nit ñi jooyee di fa jaar ñii di def nii ñii di yërëmtalu daf leen di jippi parce que dafay xam ne aada tax waaye xaqiqa taxu parce que yooyu yëpp théâtre la c'est du théâtre ça il faut moom loolu du ko émouvoir mukk mukk mukk abadal abidi parce que xam na ni xam na ni jullit mënul nekk jàmm abadan gis nga yooyu nag euh, ku la ni danaa ca àgg te duma jàng dafa nax boppam te il faut nga xam yu mel noonu kooku dañu ni yàlla moo jëmbatal doomu aadama conscience ci biiram waaye moo koy rooseel boppam moo koy rooseel boppam nit ki nag li mu war a bañ kooku yàlla wax na ko ko ba noppi bu ko bañul nag kooku affaire am la kooku affaire am la loolu mooy li nga xam ni moo ci nekk mais moom waxtu wu nekk waxtu wu nekk boobu def ciy insister jaam amul ku ñu tooñ moo am jaam amul ku ñu tooñ moo am euh, ba tax na ci wàllu yiw li sunu boroom may jullit bi te jullit bi euh, te jullit bi talibé ibrahim yi ci lañu bok talibé yusuf yi ci lañu bok ku waxon ci ñom ni rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin mudul yusuf dana ma jaxal ba ci isa ibn maryam نحن أنصار الله أمنا بالله وشهد بأننا مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ده فمت لي يلا نك لا يوخيتي القران لو لول ولا نك لا يوخيتي القران لو امول جري ها سو مي بامو جارالكو генي بيغا генي خول دكي خول سوفسي خول نكي خول خري من ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال يلا نبوين بقى تارك تار بني وخ لانا بان تار مو wëlbati génn xool ñax yi mais pour ñun taar du loolu te ko àdduna bu tukki la dem na ci ba li ñoo tuddee maquillage dem ci ba li ñoo tuddé maquillage mu wax yonent bi ni ko bu ci sa waa kër maquillage l'outard, parce que fay casser ça casse l'harmonie de la beauté le maquillage حسن الحضارة مجلوب بتضرية وفي البداوة حسن غير مجلوب باسكو دافا ام ماكياج جو خامني ساغا سا بوب لا باسكو سي بيرسوناليتي غاي غان موم غاي غان لولو تاخ مونيكو بو تي سونال جيجين ني مي بوكو سوا كير ديف waat naa ci yàlla ni léeg nga gis ku def maquillage boo xam ni làpp ko rek la sa xel di nekk ah. ah. bi. حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب أمنا بن مام من دكون سودان فرنسي بابو تدقول مالي مدان يو دي سير سي سرين بابا كرسي درد لكي شيخ الحاج عمر من دكون دك بنيو واخ دجن بري am bés ñu di ci waxtaan xam nga Cheikh El dafa wax ci rimaax benn feebar bu mu feebar mu wax Cerno Bello pour mu defal ko istixaara bu de bu gisee yonent bi mu laaj ko lan la war jëfandikoo ci feebar wax ko ko mu ni ko danaa ko seet ba mu ñëwee fekk benn soupière bu ñu ub mu ni ko mbaadu dañ lay faj fajo aada faju shirk billah yonent bi wax ko Cheikh kon lu nekk ci soupière bi mu ni ko xabbul fuz boobu moom la daan lekk xabbul fuz dinañ ko jaay ci marché yi defe naa mooy li ngeen di wax radi bërki démb rek ma jot benn brochure tubaab yi di attirer attention nit ñi ci njariñu radi la ca yonent ba wax ak Cheikh El Hadj Omar moom lañu reprendre parce que radi ñaar la bu xees bi ak bu ñuul bi yonent bi ni ko bu xees bi moo gën a woyof ci estomac kuy liggéey nag bu ñuul bi moo gën ci yow ndax moo lay gën a téye mais exactement loolu la ñu wax ñoom itam pour wax la ni li Seydi El Hadj malik daan wax ni diggante àllaaxira ak àdduna nee na rideau bi ci dox moo gën a sew li ñu tuddee musulin amul jigéen ñi di ko sol musulina amul baatu muslim sax du baatu tubaab baatu arab la ndax tissu la bu ñuy liggéeyee ci benn dëkk bu ñuy wax muusi fale ca Cham ñu faf tudde dëkk bi tissu bi waaw pour wax la ni góor googale bi may waxtaan ak moom ba ñu agsi ci li yonent bi doon wax ni bu sañoon kenn ku ne socc juróomi yoon ci bëccëg mu nettali ma benn affaire bu doy waar maam la ci man wëllëre woon la ci sëriñ Babacar deret la ci Seex Al Hajj Omar te mag ñooñu dama leen daan ratt bu ñuy jeex tabarkal mu wax ma benn gàncax bu am Soudan mu ni ma su jigéen dee nàmpal doomam gàncax boobu lañu ko jox mu ni ma cafka cafka cepp la am cepp du xam ngeen cepp mu ni ma su ko dee def ci meew di ko naan di nàmpal doomam mu ni bañ ko fàtte ba ba doom bi fer mu bu doom bi màggee du am xeetu bokkutaan seetal ñu ngi waajal seen doom bu jigéen pour bu sëyee du empoisonné jëkkëram seetal loolu pour wax la nitu yàlla yi lu ñu doon te lu wóor la lu wóor la parce que laajaat naa ko beneen nit mu wax ma ni lu dëggu la ku koy nàmpale sa doom bu jékkee bay mag du am xet loolu pour wax la jëmmu doomu aadama ni mu toll ci yàlla pour wax la jëmmu doomu nu mu toll ci yàlla ndax comme yow li ñu la chargé ci kaw suuf mooy nga organiser sa intimité avec le ciel dañu bëgg nga jël jikko waa ciel il le faut absolument te yooyu yépp ñoom ci lañ ko découvrir seen yitte àgg ca seen yitte àgg ca seen yitte àgg ca bu dee yonent bi kenn du ci mel ni moom kenn du ci mel ni moom gis nga bàjjenam boobu ñuy wax ummu hakim te ñu di ko te ñu diko ko nu wolof yi te ñu du dakentale dàkkentale di al bayda albida ci seen mbiru famille rek toujours dañu daan jaaxle ci seen famille parce que seen famille dañu kenn ku ne bëgg won sa morom ni ko nii laa tol ba àgg ci di rëy gëléem di taataan deret ja di ko def ci ndab di woo góor ñi pour kenn ku ne dugal ci sa loxo pour wone ni euh, xarekat nga euh, yaa ngi waat ni Euh, lu laal famille bi nga jaay sa bakkan nangam nangam yëfi caaxaan yu la képp mënul nett te famille yi ci des ñu gën sa famille yi ngi ci téeméer yoon te kenn àddu yàlla àtte umu hakim al bàyyi ba ñu génnee ndabu deret yi rekk kenn ku ne di dugal loxoom dañuy waatoo ku nara dal ci sunu famille nu nu àndandoo ñu rey ñii ñu wàjj ñii ñu def lii ñii ñu def lu ne moom mu ne ku bàyyi góor ñi rekk ñu yàqaatun parce góor ñi dof lañu te wax na dëgg góor dafa bari tiitar mais dof la bala nga ko xam nga fekk ko këram mënul ci kër gi dara waaye kenn du noppalu kenn du nopp su ko defee mu dem bay bu ñu génnee ndabu deret yi di ci laal comme moom daf daan jaay parfum mu dem jël butéel ya mu ca am sotti ko ci ndab lu mel noonu ba mu fees mu indi moom it taaj ni ko bëgg yiw na dugal fi loxoom gis nga saafara na ca loo xam ni parce que ku ne xam na ni ndabu deret ndabu parfum ku gën ku ne xam na ko te cax la leen def daf leen cax ah pour wane ni góor ñi lu ñuy tiitaru xare kenn mën na ci dëkk lu ne nii rek nga génne sa jaasi ni da ngay rey ni loolu foo ko te ko defee nit ñëpp mujj xam ni daf leen a cax on en a assez euh, pour wax la ni wàllu sell ci nit ki dëkke kaw suuf defewu ko lu dul mérité dëkkaale bi mu dëkkaaleeg waa asamaan te waa asamaan nga dëkkaale nag ça il faut le dire waa asamaan ñoom nga dëkkaale loolu moo tax ñu ni la même boo dee julli te teewluwuloo kenn du ko nangu parce que du bët fu mu jëm du fa àgg fu mu jëm du fa àgg ba tax na loolu yonent bi li mu ci dagg ci nit ñi ak li ci daj ci wàllam di leen won nuñ ci war a def tabarkalla la kilifa yu mag yépp donn nañ ko ci moom ba moo tax xale yi ñu war a yar ci cadre li ñoo tudde diine nañu xam ni dañ leen di yar ci cadre l'islam te ku ñuy yar ci cadre lislaam lenn dana la dal doo ëpp boo ëpp parce que ci umatan wasatan nga bokk bu ko defee loo xam ni dafa aju ci tataruf rek wàcc na wante aada baaxul aada baaxul gis nga koonoo xiradatan xasiin yonent yàlla Moussa yonent yi ci des sax ku ci ne defe woon nga ni bu tooñu nit ëppee yàlla dafay soppi nit ka mu nekk golo te ñun ñëpp lool lañu foogoon ku nuqira datan xasiin ñun ñëpp noonu lañ ko dégge sama ma di ci waxtaan ak Serigne Babacar Sy góor gu bare xam-xam la woon te sopp ko dafa soppoon xam-xam mu ni ma euh, xeetu nit tedd na ci yàlla rawatina bi yonent yi génnee ci ñoom ba àgg fu nga xam ni du leen soppi mukk ñu nekk gol c'est-à-dire du nekk transfiguration question comportement rek la nit ki bu fekke yarul bopam ba fu mu toog bu ñu ni jëfandiku bi mo bu golo yem ni yalla alak nako jappal ni yalla alak nako parce que jëfandiku golo doom adam bu démé bu di def c'est que yalla alak nako nak jarul mu diko jox genn golog gi matuko matuko mangi comportement bi rek la hmm. ba taxna lu mata baye xel la ma ngi am ben mam xam ngeen ko ci abdourahman saw abdourahman saw def ma wax ni ci ndar nun la xewalon modi yaba yaaba yaaba lu nu xamone de waye peccu su lox suuf bile mu ne ma xamone ko won parce que da fay génn cadre ummatan wasat ba taxna euh kenn ku ne yaay yar sa bopp yonent bi nee na yàlla wax na ko ne ko bu mu forcer kenn la automatiquement waaraatekat bi sañul forcer kenn te itam sax waaraatekat bi am na bu ko neexee am na neneen nu mu mën jëfandikoo su ko neexee na neneen jëfandikoo su ko neexee dégg naa ci Serigne Moussa Niang mu ni ma sa maam Sidil radiallahu taala li mu gënoon bañ ci àdduna mooy malaanu wadifa mu gis ci ndaw ku tollu ci jàng mikki mbaa mu tollu ci liggéey mu gis ko ci malaanu wadifa ne kurusam nga dal ne musu ko nangu te moo am parce ndaw li nag bu mënul jëriñ société bu ne dafa jàmm yàlla dafa font il faut que nga boole ko ak jëriñ sa société sinon c'est pas la ngay jàmm yàlla parce que lay mujj mooy penc ma yàqu na mu yàqu mooy ñëpp dañuy nasax mooy ñëpp dañuy nasax moo taxoon si naa Umar tudde woon karwaasam ga addirra ci buntu jàkk ji bu ñëwee fekk ñooñu sëriñ sëriñ loogu yu kenn xamul rekk karawaas gi dal que góor dafa dox waaye di kii pour ñu ni da ragal yàlla ragal yàlla ci doxin lay doon kooku doxul هنا حضارته عليهم مظلمة أكرم بأحمد في نظام المولد أكرم بمولد أحمد من مولدي قل للسؤول فبدعة مرضية أحسن بها من بدعة لم تجهد قل للسؤول فبدعة مرضية أحسن بها من بدعة لم تجحد كثرت أساطير الدلالة في الورى والدين معهود بما لم يحمد والحق عارية بعيد الظالم والخير الشر وديعة للمعتدي والعلم أضحى للهوى كمصالد والعدل عدل تحت أمر الحسد والمال صرف في العناد وإنما حظ عمير الفرد حظ المفسد لكن مولد أحمد من شأني رد المخاوف كلها أم مورده فالروح تبتهج ابتهاجا باهرا والنفس تنتعش انتعاش مقلد والنور فيه مقسم لجميعهم واليبن بعد ميسر للمجتدي والرصد يرجع للقلوب مجددا والرصد خير وسيلة لمجدد لا خير إلا في مضائح مادح بالخلق والخلق الكريم مردد إما بكامله البسيط موفرا إما بكامله البسيط موفرا إما بفضل طويله للمنشد إما بتزويد الوفود بخيره إما بإكرام الضيوف العبد إما بتعظيم الحقائق كلها في ذكره إما بحب محمد صلى عليه الله في ملكوته أو ملكه صلفا ليوم المشهد هذا جزاء المسلمين لكونهم يدعون أمة خير هاد مرشد هذا هو القرآن ينطق بالذي يأيا بنور هداه كل مجلد هذه صحائف عليهم أنزلت من ربهم تسري بالروح تعبدي هذه مصالحهم وكل مصالح في الدين والدنيا بالشرعة معتدي فالروح والخلق المطهر بعدها والمادة السفلى التي لم تبعد فهنا حضارته عليهم نظمت وهنا سياسته على المتقيد وبمن أتى بالعلم معجزة له علما بأن العلم علما بأن العصر عصر تفقدي وبمن أتى بالعلم معجزة له علما بأن العصر عصر تفقد وبمن يراه الأنبياء حكيمهم والرسل سيدهم وألقى سيدي وبهاشمي الأصل قبل مقام خير الأمين أمينهم والأجود أكرم بأحمد في النضال أكرم بمولد أحمد من مولده نبال مولد بارك الله فيكم والله آه مومدي خاونا تنك لي ندون واخ تبارك الله ها آه؟ وانت رك لي موي képp ku ni ci péncu yàlla nga nekk war nga yar sa bopp ba daw ëpp te nag mel na ni yi koy may nit yépp bés bu ne nit gis ko ba su ko deful itam kenn du ko ko tere waaye itam kenn du ko yéene mu wéy la mu nekk te kenn du ko ko tere parce que kenn du ko ko tere ji mooy ah jaamu yàlla la jaamu yàlla danga koy labiré labiré rekk la alquran ak yonent bi wax nit ki danga koy labiré waaye doo ko gëdd doo ko waar waar bu bu bu koy bu koy bu koy jaaxal da ngay fexe ba méthode bi nga xam ni moom la yàlla wàcc ci yonent bi pour mu nose ko pénc mi neex ci moom bu ko defee rekk yoon dafa daldi am bés bu nekk nag daf ma tooñ ni ma nun ba nu nekkee ndar yi la xamuñu koon wante fekk na eh booba xewul ba xewul ah, gannaaw gi la xew mi ngi tolloog nag dafa am lenn lu ci yokku te lu mat a bàyyi xel gis nga tubaab yi leen ngaa gis ñoom sax d'accord nañ ci ni seen civilisation bi léeg-léeg mu yóbbu leen fu leen neexu am na ci jëfandiku yu nga xam ni boo ko yemalee sa biir kër kenn du la yett mais soo ko génnee ci mbedd mi rekk ñu yett te télévision mooy mbedd mi bu fekkee lu ñu war a nëbb nga génne ko ci dafa mel ni pexe amatul fa mel ni pexe amatul té yalla ki mu ni bu nu ko def mukk mu nek sunu parrain mo xam yow ci communication ngay liggéey wala ci information ngay liggéey wala ci religion bu mu manti doon ngay liggéey amna mu tudde ci alquran euh, l'ignoble l'ignoble perturbateur il faut savoir se méfier de al-waswas al-khannas. Parce que nous, nous le nit ñi al-waswas al-khannas c'est l'ignoble perturbateur kooku ku mata wattu la ah, du tax nag ñu ni leen lii nga ma ne dañ la ciy génn tey waaye yaay bàyyi xel ci sa bopp ndax aar lu am la mais foog ñu respecté ko fannum fannum bi fannum bi عند كل عقيدة خطر على الآصال والأسحار aar dafa am mais aar dañ koy respecté dañu koy respecté ndax li góor gi daan wax ni nazalat alxikmatu min alsama فتلقاها الروم بأيديها والفرس بعقولها والعرب بألسنها فتعاونت أمم على تعظيم على تنظيمها فتعاونت أمم على تنظيمها Babacar si nee na sagesse su yàlla la sagesse su yàlla kenn du ko perturber nee na ku nekk la nga ko awoo yàlla defal na la ca barke nee na xeet wi ñuy waxu ruum ñoo dox ba ci romain yi ne seen loxo lañ ko awoo moo tax li ñu mën liggéey ci loxo kenn xamul na mu doon nee na xeet bi ñuy wax furs al furs nee seen xel lañ ko awoo moo tax ni ñoo tërale ci xel kenn mënu ko nee na xeet bu ñuy wax al arab seen làmmiñ lañu ko fore moo tax kenn du leen dab ci wax ne gannaaw gi ñoom ñépp ñu jaxasewaat ko pour wut ci principe boole seen bopp kiy jàngal kii li loxo man